mooy suñu ay néeg mooy restaurant yi keroog jeudi li fa am dafa jaaxal étudiants yi jaaxal monde universitaire jaaxal sénégalais yépp li fa am nag ñun dañoo bokk ci témoins yi nga xamante ni dañ ko fekkee dañ naqarlu ko lool am na ay nit ñoo xamante ni nii jóge nañ ay bërëb yu ñu xamul mais bokkuñu biir université ñëw saccagé fa mu doon loo xamante ni metti nañu loo xamante ni mënuñu ko qualifier mënuñu ko comprendre loolu rek bu ma ci yamee daanaka wax ji du leer. Mhm. ndax bu ma nee témoin la faculté bi ma nekk di fa jànge au moment des faits ñu brûler li nga xamante nii tey am na capacité d'accueil boo xamante ni dina jël cinq 1500 ba 2000 étudiants muy chapiteau bi ñu nekk. Mhm. man biñ may wax fee yi fekk ñun ñu ngi woon. fi nga xamante ni mooy nouveau pavillon yoo xamante ni dañ ko doon defar pour étudiants yi. Mhm. parce que université il y a quatre-vingt-treize mille étudiants donc pavillon yi doyul ñu nekk di ko di ko dolli. bi ñu nekkee di jéem a sauver li nga xamante ni mooy pavillon yu bees yi te étudiants yi war fa dëkk ñu wooñu ni ñu faculté de droit mu ngi tàkk. Mhm. ñu ñëw mais nit ñan fa fekk ñooñu mësuma leen a gis nit ñan fa fekk mënuñoo prononcer. baatu nasaraan nit ñan fa fekk duñ ay étudiants loolu moo ñu metti mm-hmm. te jàppoon naa ni loolu war nañ ci def ay éditions yu bëree bëri. mais avant avant ñuy xuus ci loolu euh, dafa am loxo am solo nee nga université effectif bi quatre mille la. Mhm. donc comment est-ce que vous être sûr que ñi def jëf jooju noonu bokkuñu fa parce qu'il est euh, difficile voire impossible de mettre un visage ci chaque nom euh, xëy na dégguñu français xëy na aussi je sais pas lu ñu utiliser le comme ruse pour vous tromper wala dara mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que ne ñooñu ils font pas partie de de l'effectif ci loolu doon leeral xam nga tey ñun xamante nañ quatre-vingt-treize du ñëpp xamante waaye bu descente amee wala manifestation am xam nañ lan mooy attitude étudiant mhm. étudiant yàgg na grève mais amul ingéniosité wu taal amphi te du ko def c'est une première c'est une première étudiant xamul fan la ñuy fayee vidéo de surveillance xamul fil bi fañ lañ koy daggee étudiant xamul taal oto oto jàmbur te oto yi ñu doon taal ñun ñoo ko moom Mhm. waa faculté de médecine oto yooyu la ñuy defee stage yeneen faculté yi seen administration ak étudiants yi bu ñu amee ay xew-xew moom la ñuy jël comment se fait que man may dagg garab gi nga xamante nii ci lay toog bu ma ci daggee damay wadd étudiants yaakaarul lu dul jàng. ak je vous bien il y une volonté de paralyser li nga xam ne mooy mooy système éducatif bi ci biir université. bon xaw ma euh, volonté de. parce que li nga expliqué nii taal oto yi nga xam ne moom la ñu kiiwee taal fi ñuy jàngee loolu amul leneen benn explication boo xam ne mën nañ ko ko jox. jëf ji jëfinu bande la bu jëfinu koo xamante nii da doon jóg manifester wu ngir am lu ko metti mhm. déedéet jëfinu bande la parce que naturellement laal nañ fa ay biens privés. Mhm. que laal nañ fa ay biens publics. c'est vrai. ndax ay ñoo xamante ni fa la ñuy daane seen doole dajj nañ seen ay bërëb taal nañ ko loolu du jëfe jëfinu étudiant tey la la remarque que j'ai faite mhm. mooy jour bi loolu di am am na ñoo xamante ni dañ doon laaj fan la rectorat féete rectorat pour dire que c'était la première ñu fay soog a ñëw waaw rectorat boo defee université un mois di nga xam fii mooy rectorat mhm. parce que parfois di nga am sa ay inscription bu amee problème wala ay jafe-jafe di nga war a xam ni foofu nga war a dem ngir ñu régler ko. donc la plupart premier jour bi nga koy xam sax nag. donc ñoo xamante ni yow ñoo la sut. Mhm. ñoo la ëpp kooku mënul doon étudiant ba pare tey boo laajtee rectorat fan la nekk bu ñu la waxee rectorat ñoom duñ ko sax mën a pronosé keneen ki day ñëw ni la fan la électorat nekk. Mhm. donc mu leer ne la ñii duñ ay étudiant ba pare li la koy waralaat étudiant mën nañ grève mais suñ biir duñ xeex. Mhm. duñ génnante ay jaas rarement lañ koy def loolu ku ko fa def rek nervi nga. mais comment quelle a été votre première réaction bi ngeen yamee ci loolu ba identifier ñi xam ne bokkuñu bokkuñu ci yéen. ça nous avait ébahi honnêtement parlant dañoo am njaqare am tiis am lu ñu metti ndax man honnêtement bi ma ñëwee damaa fekk sax sunu ay ñoñ di leen opposé di xeex ak ñoom. Mhm. ci lañu ñu woowee doyen bi mu doon une maire de famille très diligente très avertie ni ñu bu leen dugg ci loolu parce que. la vie humaine et plus importante qu'une perte matérielle. Mhm, donc autorité yëpp aussi loolu lañu wax ñoom xam nañ ñi ni def loolu dun ay étudiants ay personnes étrangères lañ yu ñëwoon ci bés bi ngir def seen jëf ju ñaaw.